abillah min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin salli allahuma ala sayidina muhammadil fatil xaatim nasil haadi wa ala alihi qadri muxtar azim radiallahu taala an ashaabi rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ya hammat cheikhi waxduri lana beedal mahdari wal taat fi binadaratin taati lana bi zafari ñu ngi ñëw léegi-léegi suñu xutbatul jumaa incha allah te na mu ngi aju ci salaatu ala nabi bi nga xamante ne mooy jawhatul kamal اعلم أن هذه الصلاة مسماة بجوهرة الكمال في مدح سيد الرجال هي من إملاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخنا القطب الرباني مولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه mu ne na nga xam ne julli bii ñu tuddee jawharatul kamal jawhara mooy wurus alkamaal bu mat bi maanaam wurus bu mat bi fii mat hi saydi rijaali ci tagg ki nga xam ne mooy sangu góor ñi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa yemin am laa seydina rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ngi jóge ci dicté boo xam ne yonent bi moo ko doon dicté dégg nga Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane anhu waaye bi waasitati Seydi Mouhamed Arabi Damrawi Seydi Mouhamed Arabi Damrawi radiyallahu anhu moom la njëkk a wax Jawharatul Kamal ñu ne ko demal nga digte ko sa sëriñ Cheikh Tidiane mu xaw ko euh, xaw a mel ni ku ku def wala ku ko ragal a def yonent bi feeñuwaat ko ne ko waxuma nga dem digte salaatu bi sa sëriñ Cheikh ci ñetteelu yoon bi nag. mu ne ci la koy mel ni lu ko bi gëdd mu ne ci la dem mu wax ko Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu dicté ko ko moo tax ñu ne min imla i seydina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci dicté yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñëw ci cheikh na xutbi rabbaani dégg nga te mooy Cheikh Tidiane mi nga xam ne mooy xutbu bi wuutu yàlla subhanahu wa taala mooy mawlana abil abbasi ahmad tijaani mu ne wa zakkara laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam wax na waxal na kii maanaam waxal na Cheikh ay jagle yu bari yoo xamante ne mu ci jawtul kamal yoo xamante ne képp koo xamante ne saxoo ko rek jagle yooyu di ko am minha bokk na ci anna marratal wahidata minha képp ku jàng benn jawharatul kamal taadilu tasbihal aalami salaasa marratin dafay wéccoog sabal àddina bi yëpp ñetti yoon àddina bi yëpp sàbbaal bi ñuy sabal xam nga mbindeef yàlla wax ne wa in min shay'in bi eh, eh, eh, hamdihi dégg nga amul lenn lu ma amal lu dul ne mu ngi may sàbbaal man yàlla xoolal mbindeef yi niñ toll nag yoo xam ak yoo xamut benn jawartul kamaal boo ko zikkaree moo méngoo ak ñetti yoon yu àddina bi di di sàbbaal kon jawartul kamaal dayoom kenn xamul ni mu toll na ci wa minha anna man qara'aha sab'an fa aksara ila ma la nihayata lahu taxduruhu ruhu nabiyi sallallahu alayhi wa wa xulafaa'ul arbaa ma daama yadkuruha mu ne bokk na ci jawratul kamal képp koo xam ne jàng ko lu ëpp juróom-ñaari yoon nga continuer san lim mu ne ruuxu yonente bi sallallahu dina teew waxtu bu demee ba àgg juróom-ñaari yoon rek ruuxu yonent bi dina teew sallallahu alayhi wa sallam mboolem xulafaa u ñeent yitam dinañ teew mu ne feeg yaa ngi continué di ko zikkar rek ñoom ñu ngi toog rek ñu ngi ñu ngi teew moo loolu mooy sabab ñu ne boo koy sikar di dox parce que booy zikkar di dox jawartu Kamal mu ngi mel ni kon yaa ngi doxloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te daganut ci taalibe muy doxloo sëriñam moo xam ci naaj bu tàng moo xam ci eh, salte moo xam fu mu mën a doon. dégg nga wax na ni itam boo koy zikkar li war mooy na ngay wut xet gu neex cuuraay nga koy def Cheikh Tidiane daan def cuuraay ca zaawiyam ba hatta Cheikh Ibrahima daan nañ ko def te loolu yëpp di ko sawu bon mooy rooxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi teew ci jotaay bi ak rooxu xulafaaw yi dégg nga yi teew ci jotaay bi dégg nga à part loolu itam dégg nga euh, mu ne feeg yaa ngi koy zikkar rek dangay gis ne yonent bi mu ngi nekk ak yow moo tax bu ko zikkar foo xam ne setut jawatu kamal foo koy zikkar rek na fekk fu set boo koy zikkar itam na fekk yaa ngi laab laab ak njàpp bàyyi mu ne képp ku zikkar jawatul kamal ci lu dul laab ak njàpp ne njëriñu jawartu kamal dina la faat maanaam di nga ñàkk njëriñ bi dootoo amati njëriñu jawartul kamal parce que moom bokk na ci njëriñam mooy boo koy boo bëggee jot njëriñ bi mooy na set na nga set na nga jàpp ba set mu boole ci mu wa minha bokk na ci njëriñ bi an man laazamaha képp ku taqoo jawhatul kamal azyada min sabi maratin nga yokk lu ëpp juróom ñaar yuhibbuhu nabi sallallahu alayhi wa bi daf lay bëgg sallallahu alayhi wa sallam mahabbatan xaasatan mbëggeel goo xam ne dag koo jagle yow xaasatan képp ku lu ëpp juróom ñaari yoon nga xam ne danga koy taqoo nag mu ne yonent bi daf lay bëgg xaasatan te yonent bi képp ku mu bëgg rek yow texe nga moo tax mu ne wala yamuutu doo dee xatta yakuuna min al awliyaa yi lu dul da nga bokk ci wali yàlla doo dee mukk te di bokk ci wali yàlla yi moo tax nañuy zikkar jawtu kamaal waaye nañu ànd ak njàpp parce que zikkaram dafa ànd ak njàpp waxoon wax naa la loolu waaw beneen bi mu ne waqaala cheikh radiallahu anhu cheikh tijaani wax na ne man daawa ma alayha saban inda nawmi képp ku taqoo jawatul kamal juróom ñaari yoon booy nelaw sooy nelaw ala taharatin kaamilatin wa firashin tahirin fekk yaa ngi laab laab mat maanaam sa yére yaa ngi laab sa eh, yaram baa ngi laab yaa ngi jàpp ba set laab lal bi ngay tëdd mu ngi laab bu dee lu mën mu ngi set wecc lépp a ngi laab wa firashin tahirin lal bi itam mu ngi laab mu ne yaraan nabi sallallahu alayhi wa gisi da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa ne wa haada awaanu sharia shuruuci waaw ne li moo ndabu soo bokkaay fii maaniha ci maanaaw kamal yaa ngi dégg eh, sallallahu alayhi wa na ni ne képp koo xamante ne yaa ngi koy zikkar lu ëpp junni yoon ba noppi ngay génnee saraxu mburu lu mat juróom-ñaar fukki mburu nga génne ko sarax soxla boo ci ñaan rek yàlla dina ko faj waaye doo ñàkk wërsëg itam doo nekk ku ñàkk yàlla daf lay wërsëgal alal bu bare bare bare bare bare bare su ko defee tey foofu lu ñuy tënkee xutbatul jumaa bi tey moom bëriwut ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp yal na ñu euh, ñuy julli conant bi ba lépp luñ si ñaan itam yàlla nangul ñu ko wa zalika alallaahi bi aziz wa salaamu aleykum wa شوق المبرح لما نم فلست إلى العيش الرغيد بأحرصي فحبي وحرصي في وصال محمد بحس ومعنى بل بطول تشاخص